mel ci weer bu dee te loolu dafa ëpp. Mhm. li ko indi nag d'abord dafa doon ndakaaru boo ko seetloo ñun ci presqu'île bu ndaw lañ nekk maanaam boo doon xaaj Sénégal téeméeri pàcc nee nañ la 0,3 maanaam benn pàcc bi da nga koy xaajaat ñetti yoon nga door a xam li Sénégal am maanaam tey bu doon Sénégal téeméeri pàcc la 0,3 pour cent moo ciy ndakaaru waaye nag ñaar fukk ak juróom. ci téeméer yi ñoom ñoo dëkk fii ci Ndakaaru donc loolu yàlla naa ko def fii la bayre bi nekk fii la nit ñi di daw si di wut si seen wërsëg te Ndakaaru it ndox a ko wër buy yokku maanaam ci penku rek la mën a yokkoo jëm Thiès jëm feneen ak feneen donc logement doon lu jafe président ne dama bëgg ci léegi léegi ñu def loo xamante ne dina wàññi njëgu luyaas yi ñu def loi boo xamante ne xool ak association consommateurs yi ak ñëpp ñu ne def nañ loi boo xam ne képp kuy fay luyaas bu yées Euh, cent cinquante mille defe naa su ma jumul mooy fanweeri junni euh, dañ koy wàññi de vingt neuf pour cent képp koo xam ne dangay ngay fay luyaas boo xam ne diggante cent cinquante mille ak cinq cent mille maanaam téeméeri junni dañ la koy wàññil ci quatorze pour cent képp kuy fay loo xam ne luyaas bu weesu euh, cinq cent mille la quatre pour cent lañ donc loolu mën nañ jàpp ne jëfu borom kër la boo xam ne da yërëm nga ne léegi léegi nañ def loo xamante ne mën na wàññi mbir mi léegi rek bu ñu toogee juróomi bu fekkee dañu la dénk baax na sans complexe nga ne nañ xool ndax li ñu defoon baax na ñan ñëw ci jëriñu ndax ni ñu ko defee baaxoon na ndax te tamit àdduna dara jagul. Mm-hmm. bés bu ne nga gis nit ku defar dara juróomi at nga defaraat ko du dëgg bâtiment yi sax boo ko tabaxee weer at mu jot wala ñaari at yu nekk nga peinture donc loolu la ñuy wax évaluation des politiques publiques te loolu nag ki ko sumb ba toogaat ne nañ ko xolaat loolu courage la ndaxte am na ñoo ne bu ñu duñ nangu ko ci wax dara duñ nangu ko critiquer donc loolu la waaye nag bu leen fàtte dara président xam na ne. Euh, wàññi luyaas yi par la loi loolu euh, mesure de mitigation loolu la ko tubaab di wax maanaam fexe euh, nu ñu jàppandalee rek ci mesure ndëgëndiku la décision ndëgëndiku waaye nag li am solo mooy sénégalais bi ba ñu doon locataire fexe ba sénégalais bi nga xam ne am na lu mu jëndee kër ndaxte dëkk yi ñu organiser yëpp boo fa demee luyaas bi ngay fay bu yéesul benn montant bi war nga cee mën jënd kër an nag ngay jëndee kër dafa am fond de garantie am banque am promoteur yoo xam ne dañ leen di fexe ba suuf si jàppandi. fexe ba taux d'intérêt yi mel ni mu war a mel looloo tax nag ñu andi programme mu 100000 logements programme bi président yematul rek ci na lu yaas wàññeeku dëgg la dañ ko war a def ndaxte am na ñoo xam ne mënuñu jënd kër. yàllaa def seen payoor fa la yem. mais ñi nga xamante ne ñi ngi fayeeku tey 60000 jëm 100000 tey seetlu nañ ne que études yi ñu def war nañ mën a am kër gu ñu moomal seen bopp bu fekkee état bi encadré na politique de logement fexe ba dëkkuwaay yi jàppandi diggante ñaar fukki million ba fukki million ñaar ak yu demee noonu danañ ko càmbar seet lu ci dox ak lu ci doxul man gis naa ñu bëri ñoo xamante ne euh, jàpp nañ ci man du fàtte mu ko am na ko ma sa ñëw sama bureau ne ma mesure loi yi maa ngi ci sant ndaxte man sama doom euh, mën léegi li wàññeeku ci luyaas dama ko ciy fayal école privée ngeen mu jàngi mais am na ci ñoo xam ne tamit ay bailleur lañ yoo xamante ne bi loi bi amee fexe nañ ba def yëfu ndaween fexe rek xam nga ñëw euh, fexe ba nit ki génn nga xoxatal ko bu max ko ba mu génn nga defaraat contrat yëkkati ko donc li président wax yemul rek ci luyaas yi dafa ne secteur de l'immobilier kan moo war a doon promoteur réew mi dañ ko war a organiser. promoteur ku jóg ne promoteur nga dañ war a xool est-ce que dañ war ñu teg carte promoteur est-ce que amul caution boo war a teg kan moo war a nekk agent immobilier dëgg la tamit yéen ñëpp boo leen di wut kër gis ngeen ni ngeen di sonne. agent immobilier bi woo la fii ne nangam ak nangam donc loolu yëpp lañ bëgg organiser waat ko ba nga xam ne population yi citoyens yi dinañ ci am peut-être yërmande bi ci war ak taxawu bi ci war bi nga xam ne moo jóg ci état. monsieur jaaxal nit ñi mooy euh, cinq ans bi nga xam ne loi bi taxawal nañ ko. Mhm. te bi ñu ko taxawalee nañu mhm. ko teg cinq ans yoo xam ne njaboot gi souffrir nañu est yeexul est wanewul aussi ne état bu Sénégal day teg yoo xamante du am suivi. déedéet day am suivi bi mooy lii parce que dañuy wax suivi évaluation. évaluation des politiques waaw mais parce que. 5 ans euh, c'est énorme. waaw mais attention mbirum luyaas boo ko tegee loi mënoo toog ci at wala ñaari at nga ne dox na wala doxul déedéet. politique publique la maanaam du du du loo xam ne rek sorxo sorxo barki suba tey lañ ko jël suba ñu xam ne fan la toll il faut nga toog évaluer parce que nii ñi waxee ne am na ñoo xam ne lor na leen am na ñoo xam ne jëfandiku nañ ci léegi nag li ma leen wax rek bu ñu jàppee ne ambition état du Sénégal mooy fexe nit ñi di fay luyaas bu tuuti loolu erreur la ambition état du Sénégal mooy képp kuy liggéey di ñaq di am loo yóbbu sa kër weer bu dee nga moomal sa bopp sa kër tey Sénégal études yi wane nañ ne trois cent mille personnes ñoo fi am njëgu kër te mënuñu koo am ndax système bancaire bi du leble ni mu war a leble trois cent mille personnes ñoo am njëgu kër gu ñu moomal seen bopp ndax suuf jàppandiwul waay waay Fatou Abdou ki nga xam ne moom jël la ne lu yaas woo maire yi tey si ngoon man ak maireu Sindia Euh, Sébikotane maire Diamniadio ak maire ñeneen ñoo toog di waxtaan naka la mën a fexe ba promoteur yi mën a am suuf su yomb donc ambition bi jël na loolu. loolu 2014 la woon am na lu ci baax nañ ko nangu parce am na ñu ci bénéficier am na tamit loo xam ne doxul àdduna moo demee noonu loi yi ñu teg yëpp est-ce lépp dafa demee ni mu war a demee donc àdduna moo demee noonu. ma lay nuyu Khady di nuyu téléspectateurs yi di nuyu Fatou Abdou di nuyu tamit suñu gan euh, di monsieur le ministre alors euh, wax ngeen ni am ngeen programme logement donte tey jii président de sax nangu na ni euh, mbirum location bi ak loi bi ñu yóbbul assemblée am na difficulté maintenant ci logement yi 100000 logements ca Daxa Xolba su ma juumulee fa ngeen ko fas yéene def alors tey nan la Sénégalais bi di def tey ba jot ci kër googu location vente lay doon wala lu muy demee. waaw xam nga euh, logement yi da may may tamit ndaxte occasion bu mel ni peut-être du bëri ndax ma leeral lu bëri logement yi du doon ci dàgg xol ba kese ndaxte sénégalais yi dëkkuñu ndakaaru kese sénégalais yi fépp lañ nekk ci sénégal programme bi ni ñu ko tëggee programme zéro bidonville lu tudd zéro bidonville bidonville mooy dëkkuwaay yi nga xam ne fàq dëkk lañ koy woowee ci wolof mooy ñëw da nga gis ne luyaas dafa seer mënoo am ci kër yu baax yi nga dem fekk foo xam ne dañ koy moo moomoo suuf si nga ñëw defar say kër yu demee noonu bu yàggee nga luwee keneen nga luwee keneen donc liggéeykat yi jàmbaaru sénégalais yi nga xam ne bés bu ne ñi ngi xëy di ñaw ñii di napp jën ñii ne ci commerce yi di jaay ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne sax ñu ngi ci biro peut-être am nañ salaire bu baax mais peut-être njaboot jàpp na leen ba li ñuy dese mënuñu ci fay kër président ne bidonville yi laa bëggatul mu am donc bidonville yi tey boo demee Liberté 6 Barak ay nit la ay dem nañ def enquête socio-économique yi ñii ay taximan lañ ñii dañu ay fóotkat lañ nangam ak nangam ñu ñëw fekk leen def partenariat public privé ak ay ñu raser kër yëpp tabax ay immeuble jox leen appartement ndax ñoo fa dëkkoon donte moomuñu suuf si mm-hmm. état yërëm leen ne téye leen lii li ci des ci appartement ñu ne nag promoteur bi jaay ko boo ko jaayee nga rembourser sa bopp li ci des nga moom ko ndaxte ku yëngu ku ne bëgg nga dara leneen li mooy naka la ñuy def ba bidonville dootul amati il faut prévenir les bidonvilles maanaam da ngay jëf loo xamante ne yokk logement yu jàppandi bu ko defee nit ñi bañ a am loolu looloo tax nag ñu ne diggante Dakar Thiès mbuur ndegam li ëpp ci ñiy ut kër ndaxte koom-koom bi fii la gën a nekk ñu def fi pour cent des logements sociaux logement sociaux mooy lu logement aidé logement boo xam ne état da ci dugal loxoom yow boo waree jënd kër Fatou Abdou danga nga war a jënd suuf defar sa aménagement dugal euh, nu mu tuddati ndox eau nangam fosse septique état ne man dinaa fexe bu promoteur bi def ko te du ci feeñ wala état bi def ko te du ci feeñ mu ne la léegi boo ko tabaxee yow promoteur bi fexe naa ba commune bi jox la suuf bu gratuit mu ne la man li ma bëgg mooy prix bi bu mu dépassé te diggante dix ak douze millions bu paree mu ne banque bi. teg naa li ñuy wax fonds de garantie du logement maanaam dafa jël ciment yokk ci dërëm ci euh, nu mu tuddati euh, kilo bu ne mu ne xaalis boobu nañ ko jox banque yi bu ñu ci defee li ñuy wax effet de levier muy cent milliards ñu ne mën nañ kat garantir cent mille dix mille sénégalais yoo xam ne at mu jot dañuy jëndi kër donc noonu la ñuy fexe léegi nag diggante Dakar Thiès Mbour ndaxte dëkk yi màgg na màgg boo xam ne Dakar ak Thiès ak Mbour léegi benn la. daanaka boo koy daw doo ko yëg ñu ne foofu 60 pour cent des logements fa lañ koy def tàmbali nañ ci Notto Diobass këru logement sociaux 150 mètres carrés la daan dekk léegi Notto Diobass boo demee programme bañ fa njëkk a am 200 mètres carrés la kër gi liñ ci bâtir 64 mètres carrés la boo amee oto xaj na ci biir. te fondation yi defar nañ ko ba nga mën a premier étage. nan la sénégalais bi tey di def parce que location bi métti na. tey pour am kër parce que HLM mi ngi fi SICAP mi ngi fi mais gis nañu ni problème bi réglé wul tey yéen euh, commencé dafa dafa am deux dispositifs xam nga promoteurs yi tamit ku ci ne ni nga mënee. Mm. am na promoteurs yoo xam ne ñoom dañ ne li ñu bëgg mooy boo ñëwee nga joxe un million cinq cent apport personnel boo joxee million cinq cent ñoom ñu jël un an tabaxal la sa kër buñ la tabaxalee sa kër à partir de date bi nga koy jot ngay fay quatre-vingt-huit mille par mois programme bi njëkk pare noonu la am na ñeneen ñoo xam ne soixante-quinze mille lañ lay laaj pendant vingt ans maanaam ñun ñii état politique bi bi ñu koy définir xam nga lan lañ bëgg. ku ci ne luyaas bi ngay fay diggante soixante mille ba cent mille boo demee fay ko sa kër nga moom ko ci diir bi nga xam ne yaa ngi koy fay ndaxte noonu la ñuy def loolu nag xeetu location vente la mais xam nga location vente terme bu technique la boo xam ne dafa am lu mu làmb loo xam ne melul ni prêt bancaire li ñu mën a wax daal mooy prêt hypothécaire maanaam yow bu fekkee danga dem tey sa banque bëgguma tudd banque yi bëri nañu waaye bi état du Sénégal gën a moom mooy BHS mën naa leen publicité boo fa demee nga ne man kat dama bëgg ci programme 100000 logements nga ne man nooto Diobass moo ma gënal wala Sindia moo ma gënal wala Dagg Xolpa mu xool promoteur bi naka la définir programme am ne la man kat damay laaj apport personnel ñun li ñu gënal nag mooy mu bañ a am apport personnel ñu ngi koy négocier. li ñu gënal mooy yow nga jóg rek dem ci programme ñu vérifier say kayit xam ne yow kat sénégalais nga boo xam ne sa salaire weesuwul wala sa revenu ménage weesuwul quatre cent cinquante mille ci weer wi ñu utal la li jiitu euh, fexe ba xam ne amoo beneen kër parce que attention tamit. bëri na ñoo xamante ne ñu mel ni man dañuy am kër ba pare ñëwaat di bëgg a dugaat ci programme yi ngir amaat beneen di ko loué loolu tamit dañ koy tere dinañ teg ay critères de sélection ba nga xam ne boo demee déggoog banque bi banque bi jënd kër gi fayal la ko yow nag ngay fay banque bi. ci fukki at ak juróom wala ñaar fukki at li ñu jaaxal nit ñi mooy lii nga wax ni c'était le rôle de la SNHLM ak SICAP. Mhm. lan moo changé ba état bi jël jël jëlal ko loxoom. waaw xam nga lu tax SNHLM ak SICAP. yàlla dafa def dans les années soixante dix dans les années soixante dañu amoon benn soutien de taille bu ñuy wax caisse xaw ma nangam fàtte naa tur bi mais caisse la boo xam ne caisse de coopération entre Sénégal ak France la woon. loo xam ne su ma juumul su ma juumul damay bañ a wax parce que tamit ku bees laa ci milieu bi euh, gerte gi lañ ko daan garantir donc tubaab yi dañu daan dimbali Sénégal jël xaalis teg ko li ñuy wax des ressources longues maanaam tey jii boo demee banque booy leb oto juróomi at la la koy lebal mais booy leb kër 15 ans wala 20 ans la la koy lebal banque yi nag amatuñu woon loolu ressources longues yooyu léegi SICAP ak SNHLM dañ daan am loolu. ñu mais ñu jëlee ko ci kees boobu bi ñu demee nag ba jamonoy gerte gi soppeeku looloo tax seen niveau de production wàcc léegi promoteur privé yi jël le relais mais promoteur privé yi tamit ñoom bu ñu liggéey ak banques yi banques yi amuñu 20 milliards 30 milliards yu ñu mën a dajale loolu yëpp nag lañ seetlu bi ñu defee constat wu 2014 président ne léegi. balaa nit ñi di fi nekk ñu naan luyaas bi na wàññeeku mais nañ def lu gën a jàppandi ci nit génération bii ñëw ñu fexe ñu gën a mën am kër looloo tax ñu teg taxe bu ñu paree dinañ teg tax fer bu ñu paree ñu ngi xool ndax mu ñu créer comme pays nord américain yi li ñuy wax sénégalaise mortgage compagnie maanaam ay nit yoo xam dañu am alal te euh, lu mel ni société d' assurance yi ak yooyu ñu ñëw dajale seen xaalis def ko ci benn fonds ne léegi ku bëgg a jënd kër dañ kay jënd ñoom jox la ko am pourcentage bu ñu ci teg yow nga koy fey ci 15 ans 20 ans. mais ministre ku amul ku amul salaire. nga xam ne da ngay fortaatu kooku moom est kër yi moom dina ci gaaw am waaw euh, xam nga nag yàlla bindul ñëpp ñu toll nday dime dañuy waxante dëgg yàlla dafa bind nit ñi yéene nañ ñëpp am kër waaye ñii seen revenu toll fii ñii seen revenu euh, digg doomu ñii mu may leen euh, dama la jox fourchette dama la ne diggante soixante mille ba cent mille loolu la suñu suñu ay études génnee tey déglul baax li ma la mais leneen dafa am dans la politique du logement il a pas seulement que li ñuy wax l'acquisition la propriété am na tamit lu ñuy wax location simple ci programme u dàgg bi nga xam ne benn la ci pàcc yi dañu bëgg pousse société yi nga xamante ne ñoom gestion de patrimoine mooy seen liggéey par exemple tey boo jëlee société d'assurance code CIMA daf leen wax ne da ngeen am réserve yoo xam ne da ngeen ko war a am xaalis bi ngeen collecté daf ci am ne da ngeen ko war a xamu leen ñi leen ko dénk kañ la ñuy am problème permettre nañ leen tel pourcentage ngeen dugal ko ci logement par exemple ñoom dañ bëgg ñu jënd ay immeuble tabax ko di ko louer location bu simple par exemple war nañ mën bu defee schéma boobu boo demee dàgg xol ba wala nga dem Sindia wala feneen nga am ay immeuble yoo xam ne appartement bi trente mille quarante mille wala cinquante mille deux chambres salon bu yaatu donc politique de logement bi am na la location simple pour ñi nga xam ne mën na am tollaguñ ci mën a jënd kër mais am na tamit li nga xam ne moom mooy accession de la propi à la propriété nga xam ne mooy moom sa këru bopp ci luyaas yi nga daan fay loolu mooy suñu yéene alors c'est bien beau tout ça mais euh, force est de reconnaître que ay programme yu ñuy tàmbali bari nañ fi mais njeexital bi moom mooy euh, def défaut euh, tey bu ñu doon xayma bu ñuy projeté wu bala pour ñu yegg ci zéro bidonville ci ñaata diir la ñu koy la ñu koy xayma sachant que Sénégal ay junni junni hectares justement ay bidonville la la xam nga wax naa ko démb ci RFM ñun ay nit kese lañ. dañu am suñu yéene ñu dénk ñu ñu war a lu xaar suñu tànk tubéy ci li ñu dénk defee ko ni mu waree ba nga xamante ne buñ ci eggee dinañ mën a am satisfaction Sénégal trois cent mille demandeurs de logement solvable ñoo fi am ay nit yoo xam ne yor nañ seen koom boo xamante ne war na mën tax ñuy fay luyaas fii ak fukki at ak juróom ñaar fukki at moom seen kër mais déggoo ñu ne trois cent mille yëpp la ñuy régler cent mille lañ la wax ne ci juróomi at yi moom lañ bëgg rek régler waaye dafa am loo xam débat yoo xam day judd wéy waxoon ngeen ko defu leen ko. Sénégal parce que mais xaaral ma wax la xaaral ma wax la. ci management tamit dafa am loo xamante ne souvent c'est des slogans yoo xam ne pour dynamiser nit ñi la te loolu mënu leen ko bañ tey jii nii bu ñu la nee écosystème construction Sénégal yëpp tabaxatuñ 4000 logements président Macky Sall ne am nañ ambition def vingt 000 logements man mii ñu ko dénk dinaa xar sama tànk tubéy ba am 20 000 wala lu këpp mais tey. bu fekkee Sénégal depuis jamonoy Senghor mosu ñoo def 4000 logements ñun ñu xëy def dix 000 logements da ngeen xas bu ñu ñëwee fii dañu waxante dëgg rek da ngeen ñuy xas est que donc loo tamit dañ ko bàyyi xel nit ki dafa am pas-pasam am yéeneem projet boo koy gérer da am ambition suñu suñu yéene mooy ñu def 20 000 logements par an bu doon sama sago ñu def lu ëpp ndaxte 300 000 sénégalais yi nga xam ne ñoo toog di ñu xa ñoom ñëpp amel nañ leen ko. Mm-hmm. mais seet nañ loo xamante ne yenu na maanaa ñu wax ko. bu buñ ko diiree ba jàpp ko xayrul buñ ko diirul it ñu góor góorlu xool li ci des ndax diiruñu ko bu ko defee ñu yeggali ko. Sénégal n'est-ce pas su ma juumlee seen objectif yéen ko bëgg atteindre en mais est-ce que temps boobu gàttul. non zéro bidonville attention zéro bidonville. deux mille trente cinq oui attention nee naa la programme zéro bidonville yenn saa yi bu waxee nga dagg ma. mais damay damay bëgg a teg cadre bi programme programme la. programme day am ay composantes. composante une composante deux composante trois. Mhm. première composante mooy éradiquer les bidonvilles mooy li ñu def cité Baraka tey boo demee cité Bissap fii ci benn tali boo demee Taïba booru Grand Dakar am na fa ak feneen ak feneen cité Darou Salaam ak feneen ñu ne nag boo éradiquer bidonville yi nooy def ba ñeneen ñi duñ fa dalaat ñu ne accélérer l'offre en logement. loolooy le projet des cent mille logements c'est une composante. mais est-ce que deux mille trente objectif. ah mais loolu la fi gouvernement bi li mu fi signé ci wàllu atteindre objectif dafa ko par exemple insuffisance. Euh, comme lan ci wàllum ceeb mbay mi li bay dundee euh, dépasse nañ délai bi. est-ce que du mel comme noonu. nday dimbee Sénégal bi ko Macky Sall di jël 2012 ceeb lañ doon def Macky ne am na yéene ñuy egg million 600 wala 1 million léegi bu ñu ko jëlee 400 a rus. dañu war a sant yàlla. ñi ñuy xas ñi ñuy xas ci loolu yëpp defuñu ko mais dañuy jéem yenn saa yi nawet baax yenn saa yi nawet ñàkk baax mais li gën a am solo mooy ñu xool fi Sénégal jóge nday dimi voilà ñu fi Sénégal jóge lañu ñu war a xool. Uh-huh. ku daan def 400000 tonnes nga egg 1 million 100000 tonnes. ka ko def da nga ko war ci ci ci wàllum uh, ci uh, yi alors gis nañu également que projet yi nga xamante ne dañu koy teg souvent dina am ñoo xamante ne dañu ciy loru uh, boo leen di def déguerpissement yi est-ce que di ngeen di concerté wu ak nit yi nga xamante ne ñooy les concernés. waaw dinañ ko def parce que xam nga déguerpissement lu métti la vraiment je vous le man maa yor liggéey bi lu métti la waaye nag. Sénégal dafa mérité xar kanam bu rafet ndaxte tamit euh, déew dañ koy organiser président santul kenn ñu xëy yor ay yat di wër kiy jaay ci mbedd mi di ko dóor déedéet dañuy organiser waxtaan nañ def nañ ay CRD <clears throat> wër nañ waxtaan ak nit ñi ne leen mbedd mi du fu ñu war a def par exemple euh, yëfu mécanicien yëfu mécanicien lu am solo la ndaxte ñun dañ ko soxla. ñi yalwaan ci wet bi sax dañ leen soxla wóor na ma ku ci ne ci yéen boo leen xëyee am ngeen loo leen war a saraxe tuuf si liy joxe ak yu demee noonu du dëgg mais buñ ko organisé wul fan lañ jëm donc loolu kese la léegi nag bu ñu waxtaanee waxtaanaat te nit ñi defuñu ko faaw nag état jël ay responsabilité alors fenn fu mu warul nekk si bien. Mhm. mais reloger ko derrière également daf ci jar ñu ñu ci ñu ciy xalaat bu baax a baax parce que ki am gagne-pain wam ci bopp koñ bi fa di daan doole wam nga ñëw ne ko waroo fi nekk ce serait bien nga am espace peut-être boo koy teg waaw xam nga man boo seetloo ci sama discours bu état juumee wala am manquement dama koy nangu Sénégal dañu woyofal li ñuy wax planification urbaine ci at yu mujj yi planification urbaine mooy lan mooy waajal fi dëkk bi jëm ak tolluwaayam ma jox la benn exemple marché Castor légumes yi ñuy lekk ñun waa Ndakaaru yëpp fa lay jóge marché bi mën na am bañ koy defar ñu ngi doon xalaat ne cent deux cent commerçant ñoo fa ne ñu dem ba jamono dox mën na am nawet bi neexul suñu mbokk yi ci àll yi ku ci ne ñëw Dakar ñii liñ mën a def mooy commerce ñeneen ñi liñ mën a def mooy leneen ñu xëy nag ñëpp dajaloo ci marché yi ba marché yi ëpp nit ñi xajatuñ fa nit ñi yor ci table ci mbedd mi nit ñi ne feneen mais est-ce que tey bu ñu demee ba ñu dëkk Castor seeni buntu kër mënatuñ fa sax taxaw bu nit feebaree bu ko war a génnee bu ambulance ñëwee mënatul egg ndax ay jaaykat. parce que man mii am naa mbokk jaaykat ak keneen ak keneen mais dañu war a xool li jaadu bërëbu jullikaay bu jullikaay la bërëbu marché bu marché la bërëbu football bërëbu football ñun ñëpp bi ñu nekkee xale boo daan football ci mbedd mi boo dóoree bal bi ñu ne la du waxtu wi ak yu demee noonu loolu moo tax mais état du jël ay doomam di xëy di dóor mais il faut ñu organiser wu am na bërëb yoo xam ne yàlla na nit di fa jaayee waaye am na bërëb yoo xam ne tamit bu naree andi lor wala war a dem ba population yi di xeex seen biir bu lal sama buntu kër bul def nangam war nañ ci jël responsabilité alors monsieur le ministre euh, loolu nga wax noonu am na solo ci réew mais mhm. loolu commandement territorial la maanaam préfet mhm. wala sous préfet mënoon na dem def loolu yow mi nga xam ne ñu ngi la ciy gis ngay dem foofu noonu ci bërëb bi ànd ak caméra yi ànd ak takk der yi lan nga ci lan lan nga ci wut ak lan moo wund loolu. waaw xam nga soxna si da ngay war a xam commandement territorial mooy lan le gouverneur est le délégué du la République. Mhm. mais il man en tant que ministre ak sama yeneen moroom ministre yi ku ci ne am na sañ-sañu jox leen digal ci li nga xamante ne man mooy samay compétence tey boo demoon Kaolack mu am problème mu euh, immeuble bu fa daanu préfet bi dina dem taxaw mais kan la fa taxawal man la fa taxawal donc il faut ngeen comprendre loolu donc man su ma neexee ma xëy ànd ak ñoom maa ngi xëy. jël ay doomu jàmbur ne leen dama bëgg ngeen déguerpir fii mais waruma dem ñaax leen waruma dem daje sénégalais yi xaaral may ma tuuti mhm. parce que baax na baax na baax na mais baax na baax na nga déglu mhm. ñi nga xamante ne tamit ñi ngi dem ñuy euh, déguerpir seen i bagage ak di ko yàq man ragaluma li may def soxna si baax na ma dem saafanteeg ñoom nuyonteeg ñoom. ak say service ak samay service waaw mais da nga bëgg ministre yi tëju seen bureau rek toog. non pas tëju seen bureau mais dafa bëri lu ñu lay gis yow. nga nekk ci kanam mu mel ne euh, peut-être que ne bi le président Macky Sall waxee ne nañu désengorger Dakar nañu désencombré boobu ba tey yow loolu kese moom mooy sa liggéey nit ñi loolu la ñuy gis parce que ci yow loolu kese la ñu lay gis. waaw d'où la question bi ma la posé. Mhm. ma gis ne euh, ministre euh, du lu ndaw yàlla bu defee seize millions de sénégalais ñu dénk la benn mission président de la république toog le 2 mu muy def prestation de serment baat yi ñu ko gën a dégg mooy mbirum euh, logement fexe ba nit ñi am logement ak fexe dëkk bi set man damaa war a toog di yeble mais xanaa ñi ma àndal war naa leen ñaax ànd ak ñoom sur le terrain wan leen ne nii la li may def tamit ma assumer ko janook sénégalais yi ci biir bët. wax leen ne ñëwuñu ngir di leen dóor wala di leen di leen di leen xoqatal wala di leen def lu métti bëgg rek dëkk bi gën a dem te balaa ma koy def attention commerçant yi recevoir naa leen euh, gouverneur yi ku ci ne dem naa sa dëkk toog waxtaan ak yow. donc action publique action publique te ñu ci bërëb yi nag naka ngeen di def ak dañ ko war a gisee noonu. Mm-hmm. dafa ab ministre waroo toog di yónnee kese semaine bi par exemple déguerpi nañ ancienne piste mais gisoo ma ma dem fa. mais action boo koy lancé dafa baax. nga taxaw loolu leer la man dama ne ñi nga xam ne ñoom ngeen jëlee ci bërëb yi. waaw ñu delluwaat ci naka ngeen di defee ak ñoom. mais dañuy demaat rek dañuy demaat parce que tamit euh, boo tegee yoon xam nga yenn saay euh, nga déguerpir fenn aménager ko. boo ko aménagé kenn du fa demaat yenn saa nga déguerpir fenn te doo ko mën a aménagé xam nga nawet bi dox na fi. Mhm. suñu diggante te ñun tamit wax dëgg yàlla sénégalais yi dañ leen war a yërëm tamit mënuñu ne ci nawet. yenn saa moom mu inondation nga ñëw bëgg leen bu bu bu max ne leen jóge leen fi moo tax bi nawet bi jotee ñu seetaan tuuti bàyyi ba mu pare mais bi mu paree ñu dem jël suñuy barbelé ak suñuy élément d' aménagement waat fa nit ñi aménage parce que tamit je le dis encore une fois je suis ferme espace public dañ ko war a respecté. aménagé lan ngeen fay def ndax bu ñu gisee fi nga xam ne muy stade Léopold Sédar Senghor li ko wër euh, lan moom lañ fa war a def. bu ñu paree ginnaaw ñu fa jëlee ñi fa nekkoon. ba pare xam nga stade de l'amitié Léopold Sédar Senghor parkingu stade la. Mhm. dafa am fonction bu taxoon mu jóg ancienne piste espace public la boo gisee tey ñun defar nañ suñu brochure dem seeti entreprise yi nga xam ne dañu bëgg jàppale état du Sénégal dans sa politique d'amélioration du cadre de vie am na loo xam ne ci suñu budget nañ ko def mais li ñu mënul mën nañ ñëw seet si sax seen TV ne leen mais yéen seen bunt bi rond point bi xanaa di ngeen ko defar est-ce que sax place publique bi doo leen ko defar def loolu des opérations de RSE yoo xam ne nit ñi dinañ ko defar. alors monsieur le ministre déguerpissement yi ci laay dellu siwaat ndax dañuy gis ni léeg-léeg ñu ñu dàq dañ fay dellu siwaat mhm. mu mel ni ci temps wu Abdoulaye Wade gis nañu ko ci temps wu Macky Sall la même chose da ngay dàq nit jël ko ba ci autoroute bu bees bi nga xam ne mu ngi Cambérène léegi si fa lañ ko def garage yu taxi alors tey est-ce que prévoir ngeen tey lu dëgër loo xam ne tey jii mën nañ cee jàpp. mu nekk des mesures vraiment dissuasives loo xamante ne dina tax nit ñi euh, fu ñu leen dàqee ñu dellusiwaat fa day dimee li nga wax dëgg la dama koy nanguwaat lu jafe la parce que nit ñi di nga leen fa jële ñu dem làqatu ji feneen par par exemple lycée Limodac lycée des Parcelles Assainies boo fa demee yenn saa yi nit ñi ne fa te peut-être du li gën ay élèves yuy jàngi bu ñëwee di dajeek yu demee noonu yenn saa yi nga ñëw fekk tamit ay camions yoo xamante ne ñëw livrer ci dara Dakar dem bu lycée Kennedy foofu du seen président de la république dafa teg ay politique yu leer gis ngeen jam ñaajo tabax nañ fa li ñuy wax garde des gros porteurs camions yi fa la ñu war a dem war nañ commencer campagne de communication bi ba nga xam ne camions yi xam ne léegi ku egg si Dakar boo livré pare mën nga dem fanaan foofu booy ñibbi nga ñibbiwaat ñaareel ba sama collègue Dame Diop sama mag sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax ministre de l'artisanat de la formation professionnelle président de la jox na ko fii ñuy wax Sébikotane euh, cent cinq euh, cinquante hectares ne ko il faut nga defar benn espace bu mag boo xam ne li ko tax a jóg mooy mécanicien yi parce que tamit suñuy sénégalais lañ ay jàmbaar lañ boo déggee 6 pour cent 7 pour cent de croissance seen loxo ngi ci ñu yóbbu leen fa organiser leen donc ñu ngi ci di ci liggéey ne ko na nga fa defar tamit fourrière bu ñu la nee Dakar fourrière bi bëreetul fourrière municipale la boo xam ne matul sax 4000 mètres carrés wala 5000 mètres carrés ñu ngi ko tey li ñu fi jëlee ci épave yëpp fa lañ ko ñu ubbu fa tamit kaas parce que tamit désencombrement day créer liggéey boo fa yóbboo kaas am na xale yoo xam dañuy dem dagg pneu yi euh, organiser ko jaayaat ko jël yenn pièces yooyu donc loolu yëpp ñu ngi koy organiser mais am na loo xam ne tamit dañ ko war a organiser mooy euh, salubrité dakaar fi mu nekk nii ñu ngi waaj benn projet de loi boo xamante day organiser tamit mbiru insalubrité dama lay jox tey benn exemple man damay moom sama terrain ci VDN mu am valeur u 100 millions 200 millions ma bàyyi ko noonu rek muré wu ma ko def ko dara. ku neex ñëw def sa baraak dëkk boo ñëwee yor sa mbalit sotti boo ñëwee yor sa grava sotti loolu tamit ñu ngi koy prévoir ci projet de loi bi euh, li nga xamante ne moom la ñuy def mooy amende entre deux cent mille et deux millions boo ko defaatee récidive ñu jël si la yóbbu la ci kanamu procureur. li nga wax parce que yaa ngi wax euh, li nga xam ne mooy euh, terrain yi ñu jox Dame Diop la formation professionnelle de l'artisanat mécaniciens yi ngeen jëlee ci bërëb yi est-ce que jotul woon ngeen dugal leen ci bërëb ne leen fii ngeen di jëm ba pare balaa ngeen leen di jëlee. fi nga xam ne dama dëgg. un exemple dama lay wax dëgg mënaguñ ko dañuy def occupation irrégulière ñu jëlee leen ci irrégularité bi léegi nag am na mesure boo xamante ne mooy mesure complète bi nga xam ne mooy pallier loolu xam nga mooy lan mooy tabax centre boobu yóbbu leen fa commencé nañ ko ñu ngi def liggéey bi tey boo demee fi nga xam ne moom mooy fourrière bi avancé nañ ci kas bi tamit avancé commencé nañ def euh, li nga xam ne moom mooy euh, terrassement yeeg yooyu commencé nañ fa sotti ay oto petit à petit nañ évoluer. entre temps y' a pas de mesure d' accompagnement pour l' yu pare yoo uh-huh. xamante mise en œuvre bi effective na mais y' a des mesures par exemple tey ñi ngi liggéey ak DER ñi nga da ngay gis ne tey yaa a trois cent ou quatre cent jeunes yoo xam ne ñu ngi fi yor charrette di jëli mbalit ñu ngi xalaat naka lañ leen di organiser utal leen tricycle fexe lebal leen te leen jàngal leen mbalit naka nga koy takkee dugal ko si biir ñu bañati ko di ko sànni ci mbedd bi donc loolu yëpp ñu ngi ci mais soxna si bul fàtte ne politique publique yi. y a huit mois lañ ko commencé yow tamit xanaa nag doo ne nee nga ma cinq ans bëri na xanaa doo ma ne huit mois tamit. tey est-ce que gënul woon gën a efficace. Mhm. centre boobu pare ba noppi ñu soog a jëlee nit yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbedd yi pour def leen fa. dëgg la pour éviter justement li Ndeye Dimet doon wax tout à l'heure koo fi jëlee tey bu subaa mu ñëwaat gontuwaat fa. dëgg la moo doon gën a efficace mais est-ce que da ngeen bëgg tamit ñu toog quatre ans mbedd mi ñun ñëpp ko bokk dañ ko war a sàmm def ci li ci war am na foo xamante ne boo leen gisee ci politique u désencombrement bi àggaguñ fa sax ba léegi parce que yërmande moo tax parce que organisé moo tax. mais monsieur le est-ce que du yërmande boobu tamit tey jii moo yàq tey jii euh, li ni réew mi mel parce que bu ñu waxee mesure de déguerpissement mu am affaire militantisme est-ce que du ci dox des des ñu ñu bàyyi leen foofu ñaan njëkk bàyyi leen fa. par exemple ban militantisme jox ma benn exemple. bon par exemple tey jii bu fekkente ne yow militant APR nga nga am doole mu am ñoo xamante ne nii fa ñu nekk peut-être jege ña fa nekkoon sax gis nga leen ñu may wax lu ne ci tere beeg média yi ne ñun dañoo jàppale président Macky Sall ba mu falu amul lum ñu fayee lu dul li bu fekkoon man militantisme wala président militantisme moo ko ñor ci loo xam ne askan wee ko dénk donc bu ñu demee dañuy seppi daaneel kii jël kële mais bi ñu ñëwee lépp lañ dindi parce que c'était irrégulier du lu yoon nangu. loolu moo tax fan ngeen ci tollu da ngeen privilégier discussion yi wala parce que déggoon nañ temps yële passé commerçant yi di wax ni ñoom tant que joxuñu leen lu lu dëgër lu ñu teg seen loxo du ñu bouger. waaw Sandaga soxna si dama bëgg tamit ñu leeral fan lañ jóge Sandaga dafa doon batiment boo xam ne depuis année trente la existé ëpp na quatre vingt ans quatre vingt dix ans mi ngi existé lakk ñaar wala ñetti yoon ñu war a egg tey nag ci defaraat ko defar boo xam ne dina mucc ayib sénégalais yi di mën a gisaat marché bi waaye tamit mu am des raisons sécuritaires waruñu seetaan ba ña fa ñu toog batiment bi daanu seen kaw. loolu ce serait notre responsabilité bu ëllëgee di nga dajeeg man ne ma Abdou Karim Fofana yow mi kat li ñu la dénk motoo ko yaa seetaan nit ñi ba bâtiment yi daanu. Mhm. xoola HLM Maris état bi dafa fexe ba ut indemnisation génnee leen fa ndax day bañ mu daanu seen kaw. Sandaga dañ jël décision waxtaan ak mairie dakaar ñu trouver li nga xam ne mooy benn euh, batiment boo xam ne mooy centre commercial Djily mbay ba pare jël beneen zone de recasement boo xam ne moom mooy. Euh, ex champ de course biñ ñëwee présenté ko commercant yi commerçant yi d'accord mais nañu nag wax dëgg yàlla centre commercial ji li may dafa xat couloir yi un mètre sax matu ko ak nangam ak nangam ñun ñu jël décision ne leen bés bi bu jotee dangeen di dem parce que c'est des de sécurité mais nag man nit la te du ma def loo xamante ne tamit wax dëgg yàlla dama ko def rek ngir am ci ngóora wala ñu may tàccu déedéet. Mhm. biñ demee ba gis ne li ñu wax tamit am na lu ci yenn maanaa te it ñoom engagé wu nañ ne bëgg nañ dem donc c'était teinté de bonne fois li ñu wax laabire am na ci dëggu am na ci ma ne kat déet nañ leen defal seen zone de recasement donc tey ñu ngi ci euh, procédure de passation de marché yi pour defar cantine yi bi ñu évaluer tamit nee nañ ñu 300 cantines ngeen évaluer alors que ñi fay jaay mat nañ 500. Mhm. ñu nangu loolu donc ñu ngi continuer procédure bi mais li am ba am mooy bu ñu yàlla mayee ñu fekkee ko bu recasement boobu pare waa Sandaga. incha allah danañ fa dem jóg lañ nekk bu ñu paree travaux yi pare bu paree ñu door fa dem mënuguma ko wax bu passation bi pare ba entreprise bi engagé wu. Mhm. comme yéen Sénégal li ñu xewal léegi mooy date sangam nga wax date sangam nga ko war a def. bu ñëwee naa leen ne. date tamit yu yoo xamante dañ ko respecté ma jox la ci benn exemple wax nañ leen ne sphère ministérielle dinañ ko def en vingt quatre mois cent mille mètres carrés mosuñu ko def Afrique ñu def ko wax nañ leen ne Ila Touba dina pare ci waxtoom pare na ci waxtam ak yeneen ak yeneen ak yeneen. waxoon nañ leen ne euh, en deux ans dinañ jox waa àll bi ndox courant. Uh-huh. ci PUDC te def nañ opération des euh, encombrements yi Dakar kese la wala wala yóbbu ngeen ko feneen ndax du Dakar kese moo encombré. gis ñu Thiès marché ba ni mu mel ak li nga xamante ne mooy rond ba boo demee Kaolack pareil fan ngeen ci toll. dans les autres régions opération de désencombrement yi am na ci yeneen localité tey boo demee Guédiawaye le préfet de Guédiawaye ñëw na ànd ak communes yi jël seen ay moyens defal ko seen bopp. préfet de Dakar même chose def nga ko li ngay wax naan ma fépp laay dem par exemple ñooñu dañu organiser defal seen bopp ni mu waree am na localité yoo xam ne ñu ngi ñu koy def mais attention. ñu ngi wax ci désencombrement boobu ba léegi dafa am programme zéro bidonville programme zéro déchet. Mhm. programme zéro déchet dafa am ñaari pànn euh, amélioration du cadre de vie mais aussi changement de l'approche sur la gestion de déchets attention zéro déchet la ñu wax déchet mooy mbalit loolu amélioration du cadre de vie la mbalit mi depuis 1970 dañuy dajale wala 60 dem tuuri mbëbës ba mbëbës mel ni mu mel tey président de la république bi muy defar programme am 2019 2024 mu ne leen. dama bëgg ñu soppi doxalin dëkk yëpp léegi économie des déchets la ñuy wax mbalit bu ñu ko jëlee dañ koy segg jël li nga xam ne mën nañ ko def énergie ñu def ko énergie jël li nga xam ne ay tissu ñu defaraat ko mu doon tissu li doon kayit donc tey Sénégal préparé wu na mi ngi liggéey ak banque mondiale ngir mën a am li ñuy wax des centres intégrés de valorisation des déchets suñu mbalit dootuñu ko sànneeti dañ koy jël di ko dajale di ko yóbbu ci centre valoriser ko comme dëkk li war a doon courant bu mënee nekk parce que am na experts yoo xam ne que suñu mbalit taxu ko bëri peut-être li ñuy wax euh, pouvoir carolifique mm-hmm. bu fekkee biogaz la mën a créer ak yeneen ak yeneen donc loolu tamit yaa ngi koy fàtte ci waxtaan bi mm-hmm. donc zéro déchet du loolu kese loolu laa ci bëggoon leer. alors yan mesure d'accompagnement le programme boobu di ondal justement parce que bu weesoo peut-être cegg ci yi nga xamante ne am na njëriñ umpalewul kenn ni ci Sénégal bokk na ci dëkk peut-être yi gën a salte waaw mesure d'accompagnement yi wax nga dëgg Sénégal dëkk la boo xam ne war nañ seetaat lu bari ci cetaay gi euh, li nga xam ne moom moo ci war a am mooy tamit ñu fexe ba yar nit ñi soxna si mbirum set mbirum cadre de vie mbirum espace public problème de maanaam nit ñi dañ leen war a gën a yee xamal leen ne par exemple tey boo jëlee économie bu mel nii Suisse wala économie bu mel ni yenn dëkk yi li tax nit ñi di leen seet si c'est parce que dafa set c'est bien organisé ak yeneen mais loolu nag peut-être ñun mën na am ñun ñii xaw nañoo yàqu ba pare. ñun c'est-à-dire dem nañ ba peut-être làggi nañ ci loolu ni ko wolof di waxee mais xale yi. Euh, tey war nañ fexe ci programme scolaire te ñu ngi ciy liggéey ak ministère de l'éducation nationale war nañ tamit quartier bu ne nga am sa comité de salubrité publique boo xam ne mën nga fa dem. nga yar nit ñi ne leen ah dama bëgg léegi semaine bu jot ngeen defee nii damaa bëgg koo leen gisati ngeen di def nii di ko yee ba nit ñi dem ba am habitude yu bees parce que Rwanda yi ñuy coow ak yeneen dëkk yëpp jàmbaar lañ vraiment jàmbaar lañ mais nag il a fallu presque une génération ñoom lii tàmbali nañ ko vingt ans vingt cinq ans ba tey mu andi résultat bi donc il faut que yëfu journaliste bañ ñu jàpp rek bu ñu jiyee dara ci suba si ne ngoon si na ñor euh, sa ëllëg sa nañ ci togg reer déedéet. dañuy fexe ñu jël temps bi ci war bu ko defee ñu àgg fañ bëgg a àgg. mais monsieur le ministre euh, zéro déchet. Mhm. est-ce que mën na nekk sans joxuñu bu fekkee joxuñu gëdd ñi liggéey ci mbalit mi. Euh, xam nga débat boobu dama koy dégg maa ngi nuyu vraiment liggéeykatu yëpp parce que. mbalit lu doy waar la ñi ci nangoo liggéey bariwuñ vraiment man ñu am respect ci ñoom laa dem naa sax seen premier mi wax leen ko nee naa leen man yàlla dafa def euh, sama yaay aide-soignante la woon ci société bi daan euh, liggéey mbalit yi mu tuddee woon ko Sowadib donc man sama jëmmu bopp mënumaa xeeb kuy liggéey ci mbalit. Mhm. sama yaay bulletin de salaire am bi mu njëkk am foofu la ko amee. donc loolu dafa doon loo xamante ne na ko nit ñi génne seen xel mais il faut ñuy waxante dëgg tamit ñoom. peut-être yenn saa seen salaire dëgg la état bi war na ci gën a góorgóorlu te man loolu naa ci xar sama tànk tubéy ba nga xam ne dootul amati mais li am tamit mooy euh, gëdd bi def naa ne jox nañ leen ko. ñu ngi ciy góorlu àdduna nag lépp matul. man doon sama sago lan mooy gëdd bi parce que ñoom ajuma ji paase rek def nañ assemblée générale te ñu ngi waaj ab mémorandum boo xamante ni war nañ la koo jox war koo jox président de la république ndax nee nañ seen salaire baaxul depuis bu ñu créé UCG 20 mois ngi nii amuñu benn avancement bu ñu sant ki seen liggéey. mais dëgg la xam nga loo gis ci benn lay tàmbalee dañoo nekk ci transformation UCG ci boppam dafa doon loo xam ne këru liggéeyukaay bu mag la boo xam ne li mu gérer dafa rëy xam nga société boo xam ne at mu jot tey jii sa budget daanaka egg na 17 19 milliards nga am 2600 employés mais unité de coordination kese la maanaam tey jii man en tant que ministre ci benn arrêté mën naa leen tere lu ma neex ci benn arrêté mën naa nommer ci benn arrêté mën naa dàq donc tey ñun dañuy liggéey ngir ñu renforcer ci foofu noonu dañu dañu war a renforcer mm-hmm. statut bi benn bu ñu renforcer statut bi nag emploi yi ñu mën ko valoriser par exemple tey bu ñu nekkoon tey agence xawma de gestion des déchets renforcer statut wala defal statut parce que UCG euh, amul statut juridique non am na statut juridique da nga naan amul autonomie juridique kañ la loolu waaw mais unité de coordination arrêté bi koy organiser kay loolu am na statut juridique mais da nga naan statut juridique bu ko rendre autonome boo xam ne tey jii dina mën a defal nit CDI bu baax voilà waaw mais loolu ñu ngi ci liggéey nañ ci projet de décret bi nga xamante ne moom lañ bëgg a proposé monsieur le ministre ñi ngi ci ñu ngi ci mais travailleurs yi xaw ma dégg nga leen am déet mais dafa yàgg mais soxna si euh, encore juróom weer ci ginnaaw ministère euh, du de de l'urbanisme du logement de l'hygiène publique organisé wuñ ko woon ko organisé léegi lañ dajale lépp li nga xam ne mooy ñoŋal di mu dundinu nit ñi ci biir dëkku taax yi donc man bu ma ko jotee dañuy organiser état tamit dafa am organisation dafa am li ñuy wax calendrier législatif boo jëlee tey euh, projet de loi liy jaar conseil des ministres yëpp dafa am agenda ba sàngam diw mooy jàll diw mooy jàll donc loolu tamit mënuñu ko bañ mais li gën a am solo mooy ñu xam ne ñun dogu nañ ci. li gën a am solo mooy nguur yi fi am yëpp ñu ngi door am nguur goo xam ne bi mu tegee programme am ñetti programme sectoriel yëpp ci affaire urbanisation la jëm logement hygiène publique zéro déchet ak yu demee loolu nag euh, bu fekkee jóg nañ di ci dox. te ñoom bi ma fi nekkee ba léegi recevoir na leen su ma juumul ñaari yoon invité nañ leen ci campagne de lancement Euh, de la propreté mën na am joxuñu leen parole parce que temps bi permettre ko woon parce que dañ foogoon ne conseil présidentiel mais niñ benn manifestation ba yóbbaale liggéeykatu UCG. journée clean up yi ngeen doon def. ci booru stade Amitié ñu gis ma loolu ci liggéey bi la bokk yoo tamit soxna si. dafa am ñoo xam ne dañuy liggéey ay journalier lañ UCG bu ñu xëyee war a nettoyer fële ñu yebal leen ñu liggéey ñu fay leen comme ñëpp loolu tamit mënuñu ko bañ. Mhm. mais encore une fois xam nga wax dafa doy waar waa UCG ay jàmbaar a fa nekk. am na fa gone yu fa ne yu am xam-xam ci science de l'environnement ak économie des déchets am fa équipe yoo xamante ne vraiment tamit ñu mobiliser lañ bëgg Sénégal gën a set. Mhm. am tamit ñu fa nekk vraiment jouru korité man jouru korité ak tabaski laa jóge julli ji ba pare ñu ne ma waa UCG ñi ngi fi taxaw di di di di nettoyer ma fekk leen marché HLM ñuy bale di for. ay plastique vraiment sama yaram daw ma xam ne ñii ñun gënuñu leen bëgg réew mi. déchets plastiques yi voté woon nañ ko fi loi bi. loolu ministre de l' environnement moo ko fi yor ah. waaw mais bu waxee déchet ak li ngeen wax ni daanaka lépp mu ngi ci biir. Mhm. est ce tey loi boobu nga xamante ne joxuñu ko cër foo tourné di nga fa gis déchet plastique mën nañu xalaat ne loi bii ngeen bëgg nii wala li ngeen fi bëgg a taxaw muy zéro déchet dina mën a jaar yoon. waaw a jàll xam nga Fatou Abdou àdduna lépp xëyul rek sotti dañu def loi dox gis ne li ñu ci bëggoon amaguñ ko mais ñu amélioré ko gis ngeen la ministre euh, de l' environnement sama turandoo Abdou Karim Sall bés bu ne mu ngi xëy di dajeeg douane di dajeeg procureur di dajeeg ñëpp pour wax leen ne dama bëgguñu soppi doxalin àdduna li am solo mooy bu ñu la dénkee dara nga xar sa tànk tubéy ba di ko doxal parce que àdduna day évoluer li ngeen jàppoon ne mooy journalisme yaa cinq ans mën na am tey soppeeku na ak réseaux sociaux yi li ñu jàppoon ne mooy péril plastique mën na am dafa gën a évoluer donc il faut ngeen may ñu tamit ñuy mën a avancer yenn saa yi ñu am succès yenn saa yi ñu am loo xamante ne écueil la boo xam ne dañ ciy jàngaat ñu gën ci defar donc loolu tamit ci gestion la ci ci ci auditu UCG ñu ngi ko doon dégg ni audit bi egg na mi ngi ci président loolu xam nga njuumte la mhm. parce que nit bu waxee tamit dañu war a dans le journalisme xam nga yéen yàlla dafa am lu leen defal l'information c'est l'intrant le plus important de la démocratie donc li may ñaan yàlla mooy saa yoo leen di joxe xibaar ngeen joxe xibaar ba mu mot te bañ ko dagg déglul bu baax li ma la wax mhm. dama leen ne mille 2018 am na audit boo xam ne dafa ñëwoon UCG am yum fa wax mhm. ma toog ñi fay ne ma dañ bëgg ñu yokk seen salaire may leen audit bi de wax na ne nangam ak nangam am na xaalis boo xam ne day flotter parce que dañ ciy fay ay mais loolu bu ñu ko lijjantee war nañ leen mën a yokkal seen liggéey mhm. ça veut pas dire que njuuj njaaj la wala nangam nangam yéen xam ngeen Sénégal moo tax ma ne la audit fu mu toll waaw mais boobu jàll na bu yàgg audit bi jàll na ba waa UCG jël nañ ci ay matuwaay ba rek la ci ay problèmes yu bëri est-ce que siiwal nañu ko oui mais pourquoi pas pourquoi pas def nañ ko ba pare naka lañ def ba man ma jot ci wala keneen ak keneen waaye liggéeykat yi dégg suñu loolu waaw bon liggéeykat yi nag wax dëgg yàlla mën nañu gis lu ma gisul man it mën naa gis ñoom lu ñu gisul àdduna moo demee noonu yoo tamit. li xew fii yëpp ci kër gi da nga koy gis. <laughs> alors duñu uh-huh. fi am ministre euh, Macky Sall te laajuñu ko ci euh, coowal troisième mandat bi. y' a uh-huh. trois catégories ñi nga xamante ne dañu ne non mënul am ñi ne oui que mën na ko am ak ñi nga xamante ne duñ ci bëgg a wax ndax bañ ñu door leen décret tey ci ñan nga bokk. am nga man fan la bokk ci sénégalais yi nga xam ne jàpp nañ ne dafa am waxtu politique ak waxtu liggéey. xam nga waxtu politique catégorie déglul ma waaw bu la neexee troisième cinquième sixième yaa xam mais xam nga yow tey journaliste nga. Mhm. lii sa intérêt mooy débat boo xam ne rek suba bu ñu xëyee euh, Ahmed Aïdara yuuxu Mamadou Mohamed Ndiaye du dëgg. opposant bi tamit li ko ñor moom mooy perturber l'action gouvernementale mais man nga jàpp ne ci 16 million de sénégalais ñu tànn ma boole ma ci quelque ministres yi nga xam ne ñoom ñooy gérer politique publique Sénégal il y mois ñu fal président la république bu bees. sénégalais yi ne liggéey lañ bëgg et moins de politique politicienne man ma mën a taxaw ci plateau télé fu ñu waxee waxu politique politicienne ma koy nourrir loolu amul njëriñ li am njëriñ xam nga mooy lan mooy sénégalais yi dans trois ans quatre ans xam nga lan la ñuy laaj un million d'emplois ngeen ñu diggoon foo leen ci toll. Karim yaa toog ci plateau wu Fatou Abdou Ndiaye ak Ndeye Dime Ndaw ne logement di entre dix ak douze millions mën na nekk te war ngeen ci mën a def vingt mille par an fan la toll. sama mbokk ne ci àll bi amuñu courant bu doy fan la toll sama mbokk yi nga xamante ne ñu ngi xaar ndox di xaar forage fan la toll. man ma am mota diw toog ci plateau télé yi naan non xam nga. mandat mais monsieur le ministre monsieur le ministre. loolu noonu article 27 bu constitution bu Sénégal. Mhm. sénégalais nga. am fi ndombal tànk. raison de plus bu ñu laaj la ko. troisième mandat bi ni ñuy waxee article 1 2 3 noonu la koy waxee comme article 27. wala boog li ñu leen wax ne bu leen ci wax loolu est-ce que dunoo dictature sax en quelque sorte. non xam nga yéen yéen nit ki da nga am sa liberté xam nga liberté mooy lan. liberté d'expression mooy da nga ñëw ne ma man dama bëgg ñu waxtaan ci troisième mandat ma ne la man su ma jógee sama kër bàyyi waxtu wi sama njaboot ñëw di waxtale damay wax lu amal sénégalais yi. njëriñ da yi njëriñ. boo ma bàyyee ma yeggalee di nga xam lan laa bëgg a wax. Mhm. su ma ñëwee janook yéen damay wax ak sénégalais yi parce que yéen rek indiwu leen fii ak looleen leen baax baax du dëgg sénégalais yi may waxal dafa am lu leen ñor Sandaga kañ lañ koy defar déguerpissement bi fan la jëm loolu c'est des questions de mais nag man dafa am loo xam ne irresponsabilité la mooy sénégalais yi naan fu fu njëg yi toll fu fu nawet bi toll fu inondation toll man ma ñëw taxaw fi di wax ay question de politique politicienne nga yor ba natt ne sénégalais yi loolu ñoru leen. parce que damay dajeeg ñoom comme ni nga ko waxee damay dem souvent sur le terrain damay dajeeg nit ñi bu ma ñëwee dañ ma naan mais logement bi fan la mais bàyyi ma yeggali damay dajeeg ñoom ñu naan ma fan la ñuy bindoo pour logement yi damay dajeeg ñoom ñu naan ma mais marché sàngam il faut ngeen nettoyer ko damay dajeeg ñoom ñu naan ma moytul kat yemal may dégg ay avis li tax par exemple yenn saa yi nga mitiger sa démarche mooy da ngay jaxasoog nit ñi di leen déglu ñu lay wax ngay tontu mais nag li ma dégg yëpp ñu koy wax ci mandat diggante journaliste ak politicien la. man nag politicien ak journaliste li ma ci gis doy na sëkk sénégalais yi laa bëgg a waxal ñoom laa bëgg a liggéeyal. mais monsieur le ministre gisoon ni débat troisième mandat bi c'est un débat démocratique parce que nous sommes en démocratie te tey jii bokk na ci ñu bëri ñu yëkkati seen kàddu ci troisième mandat bi yaa ngi opposition bi mais seen parti tamit noppiwuñ ci. mais nday nday dimee essence su démocratie lan la lan moo ko tax a jóg c'est la gestion de la cité gestion de la cité lan moo ko yëkkati fexe ba sénégalais yi gis seen bopp ci nguur. mais nday dime bu ñu bëggee jël suñu temps yëpp élection yi ah kan mooy doon candidat local troisième mandat deuxième mandat démb am na ku ma ko laaj ne ma waa mais Côte d'Ivoire ak beneen ñi ngi ciy waxtaan mais ñoom dañ nekk à la veille d' élection 2023 boo ma toogoon laaj ma ci xaar ñun dañuy ñu a am lu ñu leer ci. ndax le président di wax dadul mois ñi ngi door a fal nit. 8 mois c'est-à-dire avril jéem ngeen ko cest à dañ ko commencé rek. mois de juin ñu commencé mandat mandat mais sénégalais yi. am na yeneen mais gisee ne ku ko tudd mu dàq la. wala ñu tekki sa ndombal tànk. mais xam nga lu tax xam nga lu ah, tax alors pour poser la question autrement pour pour yombalal ko peut-être gis nañu ni que ñi nga xam ne dañu ci wax nekk président Macky Sall amul droit briguer troisième mandat le lendemain wala quelques heures la ñu ci teg. ñu tekki seen ay ndombal tànk ñi nga xamante ne ils ont dit oui ñu ñu ci mel ni ñoom Bougazelli dara fekku leen ci. alors ah, euh, y a euh, je pense que sénégalais yi am nañu raison di am jiixi jaaxa ci euh, bëgg-bëggu président Macky Sall par général sénégalais yi man wanu leen ma tamit baromètre buy wane ne ñor na leen xam nga man lan laa leen bëgg a wax boo leen ma mayee ma wax parce que maay seen invité li ma leen bëgg a wax mooy man je de la majorité je ne suis pas un opposant boo xam ne dama xëy suba ba ngoon jot di seet nu ma perturber euh, action gouvernementale du ma journaliste boo xam ne tamit dama yut sujet boo xam ne dama bëgg mu yokk. xasuma leen mais dañuy waxtaan mais cette même majorité ñu ngi wax boo joxeñee baaraamu tuuma opposition ak journaliste yi. alors que ci seen biir am na ñuy wax yaa am problème léegi bàyyil ma wax la su ma la waxee di nga xam fan laa jëm. dama ne en tant que majorité on est investi d'une charge publique sénégalais yi dañu ñu jiital à 58 pour cent. ne ñu dañoo bëgg Sénégal jëm fii ñu proposé leen programme ñu ne ñu programme bi ñor nañu on y jox nañ leen ko juróom benn weer ñu leen di sànniwaat élection bii di ñëw tàmbali di ci waxtaan man loolu duma ma ci participer soxna si duma ma ci participer c'est irresponsable nga baal ma mais man je trouve que en tant que mën naa ko comprendre nag ci journaliste mën naa ko comprendre ci opposant parce que bu ñu ñëwee gis ne Macky Sall. lal na tali yi taal na lamp yi. man man man du ma du ma tudd tur du ma tudd benn tur mais man jàpp naa ne. nit boo bokkee ci majorité y a temps pour travailler et y a temps pour faire de la politique l'opposant nag y a le temps pour faire de la politique y a le temps pour contrecarrer les stratégies de la majorité mën a avancer liggéeyam. maintenant xanaa kon léegi ci mbirum euh, Petro-Tim xanaa di nga ci wax euh, parce que amoon na ay audition yu amoon tey commencé waat nañu ne audition yu bees di dégluwaat alors tey est-ce que jàpp nga ni coow li ni mu bëree ba léegi ñu ci tudd rakku président république mbiri dina leer. mais xam nga da ngeen war a sant yàlla Sénégal boo leen di wax chaque fois rek yéen da mel ni ñun one est une démocratie boo xamante ne bu mucc ayib la dangeen di fàtte fan lañ jógee y a un sujet sur les ressources naturelles du dëgg ñëpp coow tudd ci rakku président de la république président seetaan ne na justice jël def liggéeyam justice jël def liggéeyam ngeen bëgg a toogaat di kaas mais nañ bàyyi justice def liggéeyam déedéet vous posez des questions mel dafa mel ni dafa am mécontentement ah dañu war ah dañu war a sant yàlla waaw votre kon je m'excuse mais dañu war a sant yàlla ne ñun bu ñu nekkee ci dëkk bu mel ni Sénégal mu am de question yoo xamante ne c'est aussi important que ça autorité suprême bi ne mankat duma ci teg sama loxo duma def dara te gis ngeen ko procès yi fi am yëpp même bu waree def li ñuy wax grâce day bàyyi bëpp justice pare donc loolu respect wu justice la donc sujet yi fi am te yu métti yëpp. dem na justice ñëpp toog seetaan. une enquête boo xam ne dégluwuñu ci BP dégluwuñ ci Franck Timis dégluwuñ ci journaliste bi dégluwuñ ci également Nafi Ngom Keïta am nga ci yaakaar ne peut-être même doyen des juges li mu ko jëlaat dina jaar yoon. mais doyen des juges bu egsee ci moom kay ñun mënaguñu àtte peut-être procureur jël na ñi mu war a jël. yaakaar xam nga xam nga mbiru attention. mbiru pétrole ak gaz Sénégal jàpp naa ne bëri na amalgame yi ñuy def démb maa ngi koy wax fii wax nañ ñu fi ne par exemple en 2018 wala 2017 wax nañ ne. Sénégal dafa jël gazam bi yëpp ci Rufisque offshore profond dem jaay ko total dëgg la dëgg faatu waxoon nañ ko fi n'est-ce pas ah biñ ko waxee tey lan la lan lañ wane rapport yëpp wane nañ na total li mu fay ci bloc de recherche et d'exploration ci histoire du Sénégal kenn mësu ko fay benn ñaareel ba tamit wane na ne total def na investissement yu rëy ñii nee nañ cinquante milliards ñii ne nañ cent milliards te gisul dara ci pétrole. Mm-hmm. donc lañ daan tuumaal état yëpp. gisuñu ci dara tey donc dañu war a bàyyi xel loolu te yéen tamit ngeen baal ma am na loo xam ne bëgg naa leen ci woo wala ma yee leen ci samay jigéen ngeen te da ngeen di def métier bu métti dëgg la mais métier bu noble wax naa leen ne démocratie dafa am lu ci am solo mooy information parce que nit ki buy voté xibaar mooy tax mu voté nit ki buy ñàkk voté wala buy abstenir wala buy marche xibaar moo tax donc il faut que ngeen am tamit yéen ngeen baal ma rigueur bu gën a bëri xam naa ne am ngeen ko sax parce que bi ma fi ñëwee mayu leen ma dara may leen ma ma yeggali je parle de la profession en général man sama mag journaliste la am naa ay mbokk journaliste donc xasuma leen mais dañuy waxtaan ni ñu mënee dajale ay politiciens ne leen gën leen góorgóorlu wàññi leen politique bi liggéey leen war nañ mën a janook journalistes yi wax leen dama bëgg ngeen am équité de traitement diggante pouvoir ak opposition. pouvoir. Mhm. lu ñu wax ñu setantal ko. bi ma fi toogee ba léegi de traitement boobu kon yow doo fi ñëw. non non non attention non non rigueur laa wax. xaaral ma wax de traitement moom bu wax parce que suñu loolu kon doo ñëw ma wax la xam lan wax. rigueur de traitement. Mhm. yenn saa man ma wax lu mel ni euh, je sais pas man wax fi dara ñu ne ma waaw mais délai bi est-ce ngeen ko mais yenn saa benn opposant taxaw wax lu ko neex tegu ko ci xam-xam tegu ko ci dara

cadre de ak hygiène publique ñoom ñoo yor programme mais xam naa ne dès demain dañu war a signer convention avec la mairie de Dakar Plateau avec le ministre Alioune maa ngi koy féliciter te di ko souhaiter la bienvenue ci gouvernement du Sénégal te moom dañu bëgg def une zone pilote jël Dakar Plateau. Mhm. lépp luy mesure yoo xam ne dañ ko war a teg ci zéro déchet. ñu teg ko fa nettoyer désencombrer def surveillance bi ci war ba nga xam ne. dinañ am exemple boo xam ne sénégalais bu ko gis xam ne mën na nekk feneen. alors monsieur le ministre dialogue euh, politique bi euh, instant bi ni euh, daal nañu dàq li nga xamante ne mooy élection locale yi. Mhm. alors ci point e nga dëkk est-ce que bëgg nga nekk maire foofu. waaw xam nga li ma la waxoon rek man homme politique la bëri naa ay ambition lool ndaxte képp koo xam ne da nga wàcc bëgg liggéey ci mhm. politique da nga war am ambition mais encore une fois li ma la waxoon lay wax ci lii man dañ maa dénk mission boo xam ne Sénégal yëpp ko bokk su ma naree team sénégal yi naan leen point E nangam nangam day mel ni respecté wu ma leen. su ma mhm. avancé ba élection jege nag. bu boobaa ma wax li ma ci xalaat ak ni ma ci nar a doxee alors pour pour gën a fësal équité bi nga xamante ne moom la ñuy doxee ñu bàyyi la nga nga tëjee ak lu la neex tàggoo waale téléspectateur. Euh, maa ngi leen di féliciter bu baax vraiment euh, plateau bi maa ngi fiy door a ñëw. <laughs> Euh, gis naa ne yore ngeen sourire yu rafet waaye yor ngeen rigueur bu saf-sap <laughs> mais li ma doon wax sànq jubluwuma ci ne amu leen équité dama ne rigueur boo xamante ne dans l'ensemble de la profession parce que ñun mënuñu dund sans journalisme mënuñu dund sans média yi boo xëyee li ngay njëkk a def mooy taal sa rajo déglu li xew li ma wax rek mooy ñun pour suñu démocratie gën a dox il faut que information gën a dox information nag du ana